dikkati naa fàttaliku ngeenam pawum xale wuyul nga geesu njoos daw turbine yéene kaay naan man daanaka mani la daanaka rek lii la président Macky Sall def presse bi naxee mbaay la leen Sall def yëkkati ba biir weex daal di teg ci suuf mel ni nag ku leen muñandi turbine naan man Sall dribble na presse ba dig leen daw kay bàyyi leen ak dige ba tey jii nag presse boobee moom président Diomaye mi ngi jël ab paaka teg ci seen put ñu leen di jébbal nag ay notification te service impôt yi nag ñoo koy def ne leen lagg fay kaay tàgg leen ñëw leen fay moom sàll ngaari lam tooro burgede lam leen digoon matalewu ko yéen nag fay mbaakap ñeen fukki milliards yi nga xam ne moom presse bi nag yoreel na ko keesu nguur gi moo andi coow ak salfaañoo andi it ñagas-ñagas diggante presse beeg état bi ñoom ni nga xam ne ñoo sikk tasum xibaar woote nan ab ndaje daar daar ci réew mi moom CDEPS nag di sàkku nu mu gën a gaawee loxo bu diis bi ñu riig ci kaw presse bi ñu teggi ko ca bés bi ngi ñaabar ñaabari dar entreprise de dar Sonko koppar goo xam ne nag fay bi du yomb wala yi daanaka mënee su koo fay moom presse bi nag ñu teg leen génn baaraamuk tuuma mooy fay impôt moom du ngeen ko def du Ibra Kane ministère des finances dafa war a nag tijjiwaat compte groupe de presse yi nga xam ne fi mu toll nii teg nañ ci loxo CDEPS ne pare nañu mani la CDEPS nag mooy kuréelu patron de presse yi nee nañu pare nañu ngir dajeeg président Diomaye waxtaan ak moom ngir daal wutuk saafara ci lii nga xam ne moom la ñuy dund yéen kaayub bi naan mi ci ñaar fukki at ak juróom a ngi ñuy dundu ay jafe-jafe yoo xam ne maar day taali diggante Sotrac Sias ak Ama Sénégal yéen kaayib dee média bi naan kañ la jafe-jafe yi paa yii di jeex yàgg nañoo xiifal ci réew mi ay at a ngi nii ngir lan leen yoreel ñu fay leen ko France daal di xidee mujjewul fenn ñu bàyyee leen seen bopp ñoom it ñu weeru waat te subhaanahu wa taala ñuy faatu benn par benn ba daanaka lim bi li ca des bareetul ñenn ñi nag seeni soxna yi nga xam ne tenj nañ leen ba nuppi ñooy ñëw di wéyal xeex bi ci seen place moo day xaalis bii nga xam ne ñu ngi koy xeex woote nañu ko jël dogal ñu fay leen ko ci assemblée nationale ci budget 2023 ba tey yéeni kaayib dee média bi ne ma France joxuñu leen tus moo tax na yëngal gësam nan waa ngir nag ñu fay leen nu mu gën a gaawee las yéeni kaay naan man waxtu woowu day coppet ci bii teg ci beebee ni ko rajax mi ngi wéy ci réew mi moom yaay Fatou Diagne Pape Mademba Bitèye Amadou Diallo Baara Ndiaye bale président Diomaye ba dal na leen Sambou Biagi wuutu Baara Ndiaye moo ne day Baara roñ roñi daw na daw làqu kay bokku terewul kupp rek bopp ca suuf sambu biyaagi ca kaw Pape Demba Bitèye secrétaire général ma ko wutu am Amsatou Sow Sidibé ak faatu Ndiaye Blondin ñu jox leen Mbouraake Dugi Sow Justin Correa Alioune Gueye Matar Sène Jean Michel ak Ndam Sène day ñoo teggi aas ga ca Pastef boobu Le Quotidien Le Quotidien ma nga ñëw ci faayuk nag genn bor goo xam ne jële nañ ko ca bitim réew yéenekaay bi naan man eurobond bi day ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliar la toll waaye nag coow la moom moo di lan ca teg ci intérêt mooy téeméer boo jël juróom juróom-ñaar bu ñu toftal juróom-ñaar fukk ak juróom ñu war koo fay ci juróom-ñaari at te 2021 gii rek yàggul Sénégal leb na juróomi téeméeri milliards intérêt ga ma ni la téeméer boo jël juróom gu teg ñett la ñu war koo fay nag bor bi ci fukki at ak juróom benn te tey jii ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam ni leb nañ ko dan ciy ronxi bor yi nga xam ne jot nañ ko amee booba coow laa ngi ci wàllu politique deux minutes pour lire l'essentiel naan man en tout cas service yu état bu réewum Sénégal nañ ko ku jël la nga moom moom jomaay nag ñu dénk ko gaalug réewum Sénégal moom képp kott nekk ci commande bi ñu seddu ko défense ak sécurité niki noonu it ay instrument politique yu ci mel ni APIX moom Ousmane Sonko daana ko ñu ko dara le point ak ci naan maan boobu bureau bu assemblée nationale tey dafa mel ni kuy defantee nguur gi tàmbalee nag dóorante bal seen digganteeg Ousmane Sonko ñetti député yi nga xam ne dañ leen tabboon ngir ñu bokk ci commission ad hoc bay contrôler vérification bu titre ak occupation yi nekk fii ci littoral bi dañ leen lànkloo bureau bu parlement nag xam leen ni séparation bokk Guy Marius Sagna naan leen déet yéen kay la bëgg fi mu leeral gi nga xam ne autorité yu bees yi ko yéene leeral suuf yi nga xam ne moo nekk ci littoral bi loolee ngeen bëgg lëndëmal yàqate liggéeyu autorité yu yees yi salfaañe ko sabote ko waaye dara ma nga naan Ousmane Sonko gi article bu code électoral bi may na leen ngeen tabbi député daar daar gu leen toppal yi booba a solo yéene kaay naan man président Diomaye ca jàng meeg njàngum senegal ba mu mel ni bu woon démb la cay fay génneel leen ma ko sànni la ca baax téyeel leen ma ko njàngub démb laa bëggaat mu ñëw ci Sénégal ñu jàngal xale yi nag suñuy maam nañ daan doxale ci valeur waaye tam cab njub lanket ko di jee naan maan méthode ama ngi yéeni kaay bi firndeel kook am goo xam ne ma nga toog teg la ay tànkam def pattam waaye nag ibbi ay gëtam di xool yéeni kaay bi naan maan boobaak léegi ña ngi koy tudd ci ay guerre de positionnement moom am mu ne patte gi nag dafa mel ni pattub tay tay lu la nañ ko fi candidat Benno Bokk Yaakaar loolee mani la mu nekk liggéey boo xam ne am def na ko sonn ci lool waaye pat Niass ak Amadou Ba boo moytul nag daanu lëkkaloo def coalition boo xam ne dees na ko tabax nag ci doom ba nga xam ne ba Benno Bokk Yaakaar seeyee ba jeex la fa des la moom aliyem bii di Cheikh Omar Sy ma ngay sàkku ci moom mu daal di wan gannaaw APR direct news daal di ne mani la chef bu opposition bi ngeen bëgg tabb Amadou Ba Amadou Ba paraani moom moo parewul kenn opposition day fëgg dënnam xeex ko mat ko doon ko naam moom am ci boppam moom lan toftal ci bas ci présidentielle yi waaye ba mu ñàkkee daw France ñibbisi waat da ngeen ko dégg mu wax ñamu àndal nag ñoom ñooy wax te seen wax gii daanaka moo nar a sànk am warul woon moom am soldat lam Amadou Ba laay wax de dem ci kër diine yi jaajëfal leen waxtaan ci million ak lu teg ci sénégalais yi nga xam ne woteel nañ ko ña ko woteel nag ñi ngi toog ci ban jaaxle kan lañu woteel ndax nag bëggoon ko jébbal mi moo tax ñu ko boppam dañ koo gisagul ci am na létt sénégalais yi nag mbaamu firi leen xamal leen ndax day wéy di def politique wala it day wéy di des ci biir APR wala boog day ñaabar ñaabari taxawal ab formation politique am lee fa yéen kaay naan kon en tout cas waa gauche moom ña nga ca tribune yéen kaay naan man coow laa nga ca liggéeykatu Dakar naavia gannaaw bi nga xam ni xam leen na ni dañoo ay jafe-jafe ca liggéeykat ya responsable ressources humaines ya xam leen ni daanaka manipulation la ndax kat yi dëgg ña nga ca biir dakaar naaw te loolee inspection mën na ko supervisé waaye tam IPRES ak caisse de sécurité sociale ak IPM coow li mooy jabolisation lañ ko tuddee l'observateur naan man Sénégal fi mu ne ña ngi koy joxoñ moom it nar koo tam te dara waralu ko lu dul sungu suweex si nga xam ne ñu ngi koy tàbbal ci réew mi lii nag nar a yàq deru Sénégal ca bitim réew ñu nar a jàppee réew mi ab réew moo xam ne réewum narcotrafiquant la te yi ñu fiy def ci wàllu drogue yéene kaay bi naan man mi ngi bëgg bari ba jéggi dayoo l'observateur naan man jàpp gi ci réew mi mi ngi bëgg bari teg nan loxo ni ki démb Adama Faye kaay bi naan maan ay terrain lañ koy tuumaal yoo xam ne ma ngi ko jaayee ñaari téeméer ak juróom benn fukki million ka koy jënd def ca téeméer ak fukki million laata muy deltu ginnaaw ca jënd ga delloo xaalis ba waroon doon moratoire libération naan man gannaaw door a gay day aadama fay ma nga ca garde à vue turbine yéene kaay naan man ca kaso la door a ne ab collectif taxaw nag ngir libération collectif bi di sàkku daar daar ñu bàyyi ko ndax mu wéyal ay activité am ci réew mi l'observateur naan man waaye booba coow lu coow laa ngi mooy sabar simb ak ñaaw yi nga xam ne ñi ngi koy def ci l'école yi lii day buñ ca waxul mën naa jëme réew mi foo xam ne yéen kaay bi naan man bul dem ñu dem ci kër Masaar dafa jël ab coroom ne da koy présenté soxna sa ne ko kii moo la nar a wuutu ca kër ga ne gee soxna si dóor ko dóor a dóor ba mu avorté ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te ndoog jàmm